di rafetlu yoon wi nga xam ne moom lañu moom lañu moom la ñu jóg ndax mbir mu nekk nga xalaat ko taxaw ci bala bala moo agsi bu àndee ndimbalul sunu borom mën nga caa am ndam moo tax ñu ngi rafetlu yoon wi bu baax te ñaan yàlla sunu boroom niñ ko yaakaare mu defee ko noonu ndax ndox soo demee ci alquran da ngay dégg sunu borom di wax naan wa bi min al ma'i kulla shay'in hayyin loolu mooy lépp luy dox lu nekk luy dund lu nekk ci ndox rek nga mën a sukkandiku ba dund ba kon ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko yor ba ñu ci joxe itte ji ci war euh, duñ mën lu may sant leen ci gërëm leen ci waaye du tere nag ñu wax leen li nga xam ne te moom junj na ko li nga xam ne moom la ñu gis mooy euh, dina ko ko feddliwaat euh, satadoo bi nga xam ne war nañ ko def ci f bi bokk na ci li ñu yaakaar ne ndimbal lay doon dina tax mu gën a mu gën a doy FE bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu bënnaat ko ndax château bu mag a fa nekk waaye for ba dafa tuuti euh, F2 bi moom man yàqal ma yërmande laa ko tudde ndax moom euh, daanaka des ko mënta ñàkk taal ndax ñi fa dëkk ca koñ boobu rek waaye daanaka lu am solo génn ci xaw naa yàggaale nag ndax defe naa ne 88 lañ ko lañ ko bënnoon euh, ci jamonoy Samba Yàlla Samba Yàlla Jóob boobu moo ko moo ko moo ko moo ko indi woon ak ay Chinois xëy na sax yàgg nga loolu ci dara waaye nag euh, matériel bi ak defin yi boo mën fa demee di ci xam di nga ci xam lan lañ ci war a def waaye dox gi daal suñ sañoon mu dox ndax danga dul xam ban mooy paan tey ak ban mooy paan bu ëllëgee mm-hmm. su boobaa yi nga xam bu yëpp maasee ci baax bu ñu bu benn paane xëy na desu ko desu ko gaaw a yëg lu bëree bari loolu nag bàyyi nañ ko ci sa loxo mm-hmm. te mu bokk ci dig te mu bokk nag ci dig yi nga xam ne dig dig yi teel a ñëw lay doon ba ci yàlla àndee ndax léeg-léeg bari nañ fi ay dig yoo xam ne day dem ba mu jàgg rek mu naax saay bi moom yii moom bu mu ci bokk